wéet lu muy defewu ñam c'est que ne ëpp sëriñ xamewul donj suuf akub saamil la xew amee ah, nañ taalibey cinq mille taalibey deux de deux mille nga ne million la mun a ak sil daam nag boo ma saa yoru fukk sax mun ak sil te guddi sëriñ daama tax kañ waaja daa way gën ji yonen ba yonen fal ko muy xutbu boroomam li taa ay wolof dama dégg yaaram dama nar gaay yi jàngul xam boroomam ma jooy ko teeway ko ndaxte mu dolli may may géwal sañ naa وريلو كان برومام ما نزل في جلارة سؤل في نم تاخر بايوتا ين خام برومام تخجي الله فل خمن مقام آم تخر باهيات كما يا خم برومام كواليات ca xawsiya sax fa diiwaan ca xutbu ya ak ña daa wéetal boromam ña xam yàlla ña xam yónneen ca baawoon ba tey kenn yaragul fa mu jaar boroomam te wax ji moo ko ba ko noon bi yóbbu o oh, ko diingat wax ji moo ju yoog boroomam te géej ga la lambe yàlla ba fekk muy géej mu tànk ca leeri xeebu ya naan boroomam te géej ga la dàqee seytaane ki gaay am bu ñuy maaj muy taxaw faratay boroomam te géej ga la moome mbuutum kun ci baatin bu noon bi fa beekanoom mu ne kun boroomam te géej ga la bambe ti jee ndaami xam xam ba fa yàlli way xalim ak boroomam ba àgg ci yàlla àgg ci ngeen di yónneen ñu sopp ko soppi am muy boroomam mu saxal foofee jihaari bakkan caayat ba doole tagg ak julleeg wéetal boroomam ba xawsee mel ni suukar farte xamagul ñi woom aru yi jox ko mu jox boromam di kenn ku ñëpp wax am foofe eh, eh, ci batin tubaab ya di bañ serigne se di am boromam mu fa di jant tiim yepp duniya di talif ci sellal boromam <laughs> kon sin doyen no salam la di do def serigne ko تغني عن مربي لجسم الفتى لقرب الحب bay wa ca topp nag moo gën a yéeme wa annaha tasturul xuyuuma rek la ñu wa yaxfirallahu li suñu waaye dana salatul nabi day sutural ayib loolu saay saay saay saay fi ne gars yi bari ñu saay saay fi ne man mii ko saay saay laa gars yi bu xamul rek xamuñ damay tuxam de de te taabal yaa nga man maa jaajëf seen maa bu jënd poon dem saa sama yëg-yëg tey dafa kawe lii xew Touba ngont yi jàng alxuraan jàng xas da waxtaan yi duma ma ci sori dama bëgg nga wax ma sa yëg-yëg rek ci lii ñuy def Touba ci liggéey sëñ Touba. waaw noo ngi lay baax sëñ Abou Bikirin Ka. جاورين نقول إيش أربعة معلم لا لي تودي هاي ده فكنا برام توعلم لا وخرك نون لا أمي أمي صح نون خمد دو كل جزء واي نون لا أمي مم دفن هباداتنا فقط هبادات خيرنا لولا نك mooy li sëñ Chouaïbou Diouf doon wax léegi foog mu bindal nu nag ay tawaalif yoo xam ne ci la ñuy jaar ba mën a am loolu te wax na la itam ne nii mu borom Tuubaa li mu bind bindu ko ci am jot bind ko ci am xam-xam rek dafa doon dafa doon docteur boo xamante ne xalaa kuli xaal malade yi dañoo bari ndax yàlla dafa bëgg doomu aadama te doomu aadama gën a sikk ci lee la bind yàlla waxaat ci alxuraan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaaka rahmatan lil alamin rahma joju di gatt na ci yonent bi borom tuba daal di ñëw nak doon ab khadimam ngir yenul ko lolu nim ko ko yenul nak moy tawalif yi nga xamantene dafa doon lo xam yalla da ko nangu mutlaqan ñukoy jëfëndiko di ag ci yalla jaamu borom tuba di gëna wëy wéy di jaay mi ngi mel docteur bi nga xam da dañ jangi ak docteur ba kal ko yóbbu ko ci dëkk bi gën a doon am am ay ay ay ay malade hmm. mu ne fa nag di faj di bind ay ordonnance nit ñi di ko di ko jëfandikoo di wér moom itam xam-xam di gën a yokku. Hmm. wax wax dégg nga wax ji. waaw waaw moom tey xam naa ne moom daa mel dama xaw a fees nag. waaw <laughs> sëñ Malick. waaw kon alhamdulilah dama doon laaj jooy ni ko. lii xew Touba maanaam maam lii daal Malick maam yëg-yëg ñu ci am daal damaa bëgg waa at ñëpp yëg loolu. Touba nekk gi mu nekk ci kanam ci liggéey sëñ Touba bi ci xas day yéeg maam ñaanal doomu borom Touba yeeg dundal